asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñu ngi leen di ziar di amati mbégte di ànd ak yéen ci télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu lambook njëriñ tey di samedi ñetti fan ci weeru avril atum 2021 ma ànd ak euh, ci liggéey bi di le grand man euh, Pape Diagne ngeen gis sama ginnaaw nag mbooloo mu takkoo takku ñu ci ginnaaw xanaa euh, Pape dañuy ne coow rek daal di dugg ci biir amal leen waxtaan wu am solo. waaw delloo naa ziar. alors ñu bëggoon xam lan mooy seen tànk fii ci kër sëriñ bi. sama doom ji moom laa indi fii. ku ku góor gi daaw baren maa ngi wuti pexe pour ñëw fii aw ma nekk ki ma nekk ki ma nekk ki baren gi dama yàlla may pour ma mën a ñëw gisee ak sëriñ mais yóbbu naa ko fu ne. yóbbu nga ko fu fu ne pexe am. moo ci benn saafara. mais moom boppam moom mooy ko faj. moom nee na ñooñu ko faj kii rek moo ko mën a faj. kon yéen avant xamoon ngeen kii. waaw xam nañu ko ci réseaux sociaux yi. dañ koy seetaan souvent toujours toujours kii sama soxna la ak moo jur. waaw kon daan ngeen seetaan sëriñ bi ci YouTube bi. waaw am nañu ko ah t-shirt am sax am nañu ko gëdd moom mii toog sax sama jabar moom la sol sax. mais mais daal c'est la première fois ngeen ñëw. c'est la première fois ma ñëw. fii moom nan nga gisee organisation kër gi. organisation bi macha allah macha allah macha boo fi ñëwee doo sonn doo xiif doo raf def kii yëpp dañ la koy toppatoo bi moom macha allah waaw. comme da ngeen faral di seetaan vidéo sëriñ bi ci réseaux sociaux yi. lan nga ñu mën a wax ci sëriñ bi ci li nga jot a seetaan. bi kay moom amul lu ñu laam-laamee xam nga wet yi gis bokku ci waaw malgré que réseaux sociaux lañ koy seetaan mais man gëm naa ne lu am la waaw lu am la te lu wér la ndax bëri nañu waaye li fi ne moom moom laa mënut a gis fenn waaw dëgg yàlla gisuma ko fenn merci ñu ngi lay ziar. ñaa ngi delloo ziar. yaa ngi am jàmm. yaa sant bu baax. bu neexee bi de. maa ngi wax bu baax. d'accord ñu bëggoon xam sa tur sa sant ak fan ngeen jóge. Awa laa tudd. fan ngeen jóge. Thiès lañ jóge. ana waa Thiès. ñu nga fa. ana monsieur le maire Talla Sylla. ñu ngi mi ngi mu ngi ci jàmm. mu ngi ci jàmm waaw. alors. ñu euh, mooy tànk yi fii ci kër waaw tànk yi fii mooy sama doom laa indi njëkkoon nañ fi ñëw ah, waaw ñoo taxoon doo ñëw fii 19 def naa fa ay 20 jours wala lu ko jege après ñu toxu si fii si bi mu see fii sama doom la njëkk a faj non non kii da doon daw comme nii muy def ñoom ñaar laa indiwoon mais bu xamee ne Thierno ngi ñëw rek xaw ma da koy sentir xaw ma rek mu ne maa ngi dem parcelle nijaay ma ngi parcelle léegi dañuy rombante daal ba man ma dugg ba génn kam laa fi indi woon. Euh, nan def ba xamanteeg sëriñ bi. man euh, sama sëriñ bi ki ma fi indiwoon moo ko doon seetaan. daal di ma ne man sama feebar yaakaar naa ne ak am naa ko ko mën a faj ma ne ko fu ne mu ne ma Dakar léegi bi mu defee publicité bi kii bi luuma bi luuma bi mu jàppee le roi xaaxaa ci jour boobu lañ ci ñëw cinq heures lañ quitté te pamt pamtee ma lañ ma def ñu daal di ñëw ñëw ci kër gi ñu ne ñu ngi géej ñu ma jël taxi ñu dem géej bi ñu demee ñu toog fa tuuti rek affaire bi tas ñu ñibbi si après mun ne ñu ñibbi leen ba suba ca ëllëg sa ñu daal di ñëw xam nga rek 19 mi nu mu meloon liñ fa dund yëpp ñoo ko fa dundandoo ba ba muy toxu si fii bi muy tox si fii bi mu toxusee fii nag premier jour kii lañ kooku lañ njëkk a faj après miñ ko tuddee moo tax keroog bi ma koy waxaan maa ko naan su ma waxee nii doo ma xàmmee man may yaayu premier ginne bi nga njëkk a jàpp ca ca kii ba ca daaru laay alors euh, nan ngeen def ba xamante nan euh, da faral di seetaan vidéo sëriñ bi. bu baax samay bët baaxul waaye damay seetaan bu baax. alors comme da faral di seetaan vidéo sëriñ bi lan nga ñu mën a wax ci li nga jotoo seetaan ci sëriñ bi. sant yàlla bu baax bég gis ci njariñ tamit man gëj man dama jabet gëj naa dem hôpital man kii daf may rey sax. man su sama om méttee sax damay toog wax ñetti kenn mu lay sow yi tifli ko daal di bës mu wàcc parce que démb boo njaayee ci mujj damaa yeewu sama bopp bi diis di metti metti boo xam ne gëj naa ko am ma jël t bi gis nga dem na sax ba furi man mooy sama gàllaaj man daal di koy muur ci sama bopp bi wax ñetti kenn mu lay sew yi rek bopp bi sedd guy maa ko koy wax mu may rey kon kenn man njëriñ li ma ci gis bari na waaw su jógee dinaa wax ñetti kenn mu lay sow yi man daal gis naa ci njëriñ daal surtout ñetti Thierno Moulé Sow yi waaw. kontaan nañ bu baax. macha allah macha allah. ñu lay ziar sëñ Fall. delloo ziar. naka mbokk yi. ñëpp ngi si jàmm. bu mën xam tur bi sant bi ak fan nga jóge man maa ngi jóge Cambérène. tudd Edouard Euh, ñu bëggoon xam lan mooy sa tànk fii ci kër gi. moom sama benn xarit bu nekk Italie. Ivoirien la. day faral di seetaan sëriñ bi. waaw moom moo moom moom moom trop moom ma gën a xam sax hmm? ah. ay après si la envoyé jawar ji pour ma indi fii comme c'est la première fois femme bi ñëw Sénégal. te man Diabète à côté mu envoyé ma ko pour ma ñëw fii ànd ak moom. jabar ji mi ngi fi. mi ngi ne toog moom français lay làkk boo bëggee boo interview ko kii ki muuru nii may mun a. kii toog. kii. troisième. ah d'accord ok léegi mu envoyé la. mu envoyé pour mu ñëw fii man maa ko jël aéroport war ko ba présenter bi pour mu seet. yow ko war a accompagner la. voilà moom c'est la fois mu ñëw Sénégal te nga xamu fi kenn Modou Mor yi moom xam nga lu ñuy jàppalante moom tax mu envoyé ma ko pour mu accompagner. yow mas nga ñëw fii. pour faju non. mais mas naa ñëw fi jënd si t-shirt sama beneen xarit jënd naa fi cuuraay mais xam naa fi daal. Ah, xam nga bu baax a baax. xam naa fi bu baax. lan mën a wax ci organisation kër gi. non est bien quand même vraiment est bien su ak feebar bi lëmbe dëkk bi. vraiment précaution yi c' est yaa naa. da ngay faral di seetaan vidéo sëriñ bi. non suma xarit nag ñoo ma koy gën a seetaan léegi euh, say xarit ñoo la koy gën a seetaan mais am nga ay écho ci li sëriñ bi di def. Hmm. lan nga ñu ki mën a wax ci ci tuuti rek. Ah, en tout cas daal euh, jullit buy faj. doomu aadama yi. loolu rek c'est déjà un acquis. plus nga am sa doom moom. mu wàññeeku nga gis ko koy faj mu faj ko ba mu wér sant yàlla aussi kon li muy moom vraiment c'était affaire la bi nga xam ni c'est vraiment c'est important vraiment c'est très important parce que ku mu doonoon sa doom di nga bëgg ko faj boo gisee nag ku sa doom ànd ak àndandoo yi ay jinne nga gis ko koy faj te sama copain yi na dama vraiment ils ont vu très bons résultat moo tax kii jóge Côte d'Ivoire ñëw bu fii man nag dañu ko a pas de problème man je me suis kontaan nañ bu baax. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay ziar. ah yan ziar nangu. ñu bëggoon xam tuur bi ak sa sant ak fan nga jóge man Asanatu Diop laa tudd maa ngi dëkk Mbour suma doom laa indi woon. mas ngeen ñëw fii. déedéet c'est la première fois ñu ñëw fii. ñu bëggoon xam lan mooy tànk yi fii ci kër gi. Ah, indi sama doom rek pour mu faju moom Kolda lay sëy dañoo toog ci YouTube bi ñuy seetaan te gis ay kéemaan ci YouTube bi ñu kontaan ci lool xam ne lii yaakaar a ngi fi ci lañ jël dagg paas mu ñëw fekk ma mbuur laa ànd moom ñëw fii depuis sept ñoo ngi fi waaw. ñu doon yaakaar nag. avant boobu daan ngeen dem di seet yeneen ay sëriñ. waaw. dem nañu ay sëriñ ba sonn moom kool daal la jóge est-ce que am ngeen tan ah tanu olof rek tanu olof rek ñu sant yàlla waaye nag bañ déggee fii nag moom te ñu gis ko looloo tax ñu am yaakaar ñëw fii. di di faral di seetaan vidéo bi. waaw am na benn ma ma seetaan ko man suma benn xarit boo xam ne ñoo dëkkoon daal ma gis ko fii ci lii bi ci YouTube bi waaw. li ba ma ko gisee ci YouTube bi nag ma laajte léegi nag ba ma laajtee nag ñu ne ñoom moom dégg nañu muy kii muy muy commentaire naan moom daal gis na ci tan daal gis na ci tan trop loolu ba ma ko déggee nag ci laa gën a amee courage daal di ñëw nag mag sama doom. ngeen ñëwee fii nan ngeen gisee organisation kër ñëwee xel dal na parce que xam na yaakaar nañ fi daal lu ñuy doon yaakaar gis nañ ko fii. merci waaw jërëjëf merci kontaan nañ bu baax. ñu ngi ziar. Hmm? ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di ziar. bëggoon xam sa tur sa sant ak fan nga jóge euh, maa ngi dëkk maa ngi tudd Xadijatu Jàngar Xadijatu Jàngar laa tudd. fan nga jóge euh, maa ngi dëgg maa ngi jóge Jofiyoor. Jofiyoor. Hmm. ana waa Jofiyoor. ñoo ngi fa rek. mi ngi mi tàng wala mi ngi sedd. ah instant yi moom des fois moom day tàng moom ñoo ngi ci ñoo ci jàmm bu baax a baax. alors ñu xam tànk yi fii lan la ci kër gi. waaw dama ñëwante rek pour xool sama yaram rek pour faju si parce que mosoon naa fi ñëw ay weeree si ginnaaw mais après dama fi ñëwaat mu wax ma benn prix après mu jox ma numéro mu ne naa ko mais après dama dama ko ba sonn mais jotuma ko moo tax ma ne xaaral tey ma ñëw fii comme ça mun a waxtaan ak moom. alors nan nga gisee organisation kër gi. ah organisation bi macha allah moom dan na xel moom. <clears throat> Ah, ok waaw. li ngay faral di seetaan ay vidéo sëriñ bi. waaw waaw parce que man lu tax man ngeen fi ñëw sax parce que man dama dafa am benn jour ma seetaan benn vidéo te man dama doon faju faju naa ba sonn léegi man gisuma ci résultat. man nga doon faju ci yeneen ay sëriñ ko waa dem naa ci ay sëriñ yu bari bari nag mais gisuma ci benn résultat loolu moo tax ma ne xaaral comme fii nu ma ma gisee daal mu fajee dal na sama xel moo tax ma ne xaaral naa fi ñëw ba xam hmm. waaw damay ñaan yal nañu yàlla boole rek. ok ñu ngi ziar bi. waaw sant yàlla gudul dëkk alhamdulilah ñoo ngi nangu ziar. bu woon xam tur bi sant bi ak fan nga jóge Xaasim Diagne dëkk Saint-Louis mais nag Joal laa jóge ana waa Joal. ñëpp nga fa alhamdulilah. miin nga Saint-Louis bu baax. fa laa dëkk fa laa juddoo fa laa màgge. ban quartier. Gendar Gox Mbaaj. xam nga famille yam taw. bu baax yam taw sama papa la jabaram sama bàjjen la. ñoo dëkkoon ca Nouadhibou ma ak ñoom. Thian maire Thian ak sama papa ñoo bokk benn baay man Diagne laa sant. kon yow sama mbokk nga. waaw mën na nekk de. ana Ahmed nga fa. mi ngi sant waaye liggéey gun fa dara waaw. xanaa yow politicien nga. duma politicien man mool la borom gàllaan napp rek laa xam xam nga ñun doomu Gendara napp rek la ñu xam loolu sax moo ma indi fii. mooy say tànk fii ci kër gi. waaw dégg paa bi rek ma ñëw fi doon wut si ñaan dégg paa bi rek ma ñëw fi doon wut si ñaan mais nag mosuma fi ñëw c'est la première fois tey. comme mosoo fi ñëw bi nga ñëwee fii nan nga gisee organisation kër gi. waaw organisation bi rafet na médecin traditionnel bu amee organisation mel nii sax barewul waaw ay rang ay xëccoo ay morode gis naa ne daal loolu amu fi affaire bi daal nice na moom wax dëgg yàlla. non mosuma ko seetaan nag sama benn xarit rek moo ma nii moo ma tegtal fii daal. pour nga ñëw fi waaw pour ma ñëw fi ñaan rek laa fi wuti pour jàpp jën. kon yow euh, xel dal na. waaw li ma fu gisagum nii sama xel dal na sama xel dal na. jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax. jërëjëf seen merci yéen moom jàmbaar ngeen jërëjëf. merci yéen moom télé askan ngeen jërëjëf. jërëjëf macha ñu ngi ziar. maa ngi leen dellu si ñu buggoon ñu buggoon xam tour bi ak sant bi ak fan nga jóge baa ngi tudd Aïssata Ba sant baa ngi tudd ay Aïssata sant Ba jóge Mauritanie. waaw fan ci Mauritanie. baa ngi jóge Nouakchott Nouakchott laa jóge. cinquième sixième wala Ilo R wala. Euh, Medina R ou ou Marbat waaw. France fan nga jóge ci France. Paris laa jóge dans le onzième arrondissement. alors ñu bëggoon xam lan mooy sa tànk fii ci kër gi. sama tànk mooy ñëw ziyaare sëriñ si di ko jox wàccuwaayam daal di ko remercier infiniment. pourquoi. parce que bi ma nekkee Paris dafa am li ma doon topp dafa am benn jigéen buy soppali ko euh, serpent daf ma sonal nax pendant des mois et mois mais à chaque fois comme dama doon seetaan film Thierno Moule guddi gi daf may daf may dimbali. Thierno dafa may dimbali yenn saa kool bi muy def mooy transformé en serpent mu ñëw entouré sama néeg di ma surveiller yenn saa dafa may yëkkati yóbbu ma ba si kaw di ma dimbali moo tax il ma ñëw remercier ko ci loolu. alors est-ce que mës nga ñëw fii. non c'est la première fois ma ñëw fii. comme c'est la première fois bi nga duggee nan nga gisee organisation kër gi. dama gis daal ñëpp macha allah euh, euh, dafa jaar ci ordre bi daal euh, baax na. ku nekk mu ngi respecté keneen kii amul désordre macha allah euh, kër gi daal tout est bien ici organisé organisation bi daal baax na. da seetaan ay vidéo sëriñ bi. la première fois bi ma ko commencé seetaan sa bopp da doon métti sa bopp moo doon métti. mais dama koy seetaan ba 3 heures du matin 4 heures ma war a xëy le matin à 7 heures du matin war a liggéey mais dama koy seetaan ba 3 heures du matin 4 heures du matin yenn saa damay am palpitation yenn saa may jox bëkk buy métti mais bi yëpp passé la. alors comme da ngay seetaan vidéo sëriñ bi lan nga ñu mën a wax ci Thierno Moule Sow. li ma mën a wax ci Thierno Moule Sow mën na la faj fekk ñëwoo. à distance à distance. te lu muy faj nit ñi fii du du nit ki dong lay fase lay lay faje lay faj daal <laughs> ñëpp lay faj parce que euh, par exemple jinne jàpp na la faj na la man maa ngi xool ma lay xool mais jëpp euh, jinne bi la jàpp moom ma jàpp bu génnee si yoo daal mel ni génn na ci man parce que faj na la faj na ma faj faj na ñu bëri te yëguñu ko. loolu mooy kàddu gu mujj gi. Euh, Thierno Moule Sow daal amul moroom amul morom il est le mu neex nit mu naqari nit amul moroom li ma doon wax démb ak birki démb ci pulaar weli mbeewa métti mbeewa ko ngelaw ba ñaamata ko mbeewa ina daara heɓata mu neex béy mu naqari béy li gëleem di lekk béy da koy séentu du ko jot loolu dong laa ci xam sama olof leerul. <laughs> jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax merci. Aïssata Abdoul Sidi Ba kii moo tax ma xam sëriñ bi. ci naka. moom gër la xam nga dërëm ak dërëm ñoo ànd. dërëm ak dërëm ñoo ànd kooku moom gër la fekk naa sëriñ bi gër la sëriñ la wante nag gër la ñu boolem ak moom sëriñ bi may na ma lu ne ci àdduna ubbil na ma lépp buntu yi ñu nekk fii ci kër gi yëpp ubbil na ma billaahi wallaahi moom moo jàpp ci sama loxo ma ne foo bëgg a dugg ci kër gi nga dugal moom sëriñ bi billaahi wallaahi tallaahi barke salaatul faatiha ma ne ubbil naa ne loo bugg ci heure bu nga dugg ci kër gi nga dugal. léegi Aysata nag. Aysata Ba Pulo. loo ñoo mën a wax ci moom. Pulo man Manding Pulo loolu la ngay def Pulo ko sa mbir dem ko taw daan ba wul fa ko ko maayara dafoo ko jaaw nga rondi kala ko maayara do ko jaaw nga rondi kala ko kemme teerno mun la soo ko Aysata Abdul Sidi hokkimi. loolu mooy lan ci lu ma am lu ma am ci Serigne bi moom moom moom moom la jóge moom moo tax tànkam. ci euh, nu mu tudd. lamiñam moo tax ma ñëw fii ci kër gi ma xam sëriñ bi. wante dana ñuy daanelee mooy sa baat neex na macha allah kenn dàquloo woy euh, dama buggoon rek nga wax ma benn kàddu rek ci woy yi ngay woy ah. bi nga jëmale ci Aysata wala ci sëriñ bi boo koy woy daf nit ñi dafa am lu ñuy yëg seen yaram mais ci woy yi mën nga ma ci wax benn kàddu rek ci biir woy bi. xam nga lu ma la wax léegi waxal naa la léegi euh, wante dana waali ngay wulee léegi yoo nekk jàmbare bi ne keddi ba léegi moom aduna bi aduna bi day tukki jeex na wante nag ba léegi moom jàmbaar yi des na. mooy woy bi xam am na solo. macha merci kontaan nañ bu baax. jërëjëf alors suñu mbokku internautes yi suñu mbokku téléspectateurs yi gis ngeen tey ci samedi bi lii moo nekkoon seen émission grand reportage ñu amoon mbégte dugg ci biir euh, laaj patients yi nga xam ni ñoo fi ne. gis ngeen am na ñu jóge ba France am na ñu jóge ba Diofior am na ñu jóge ba Mbour ñuy jóge ba Saint-Louis li ñu mën a gën a nag retenir ci kàddu euh, patients yi nga xam ne ñoo ngi ci biir euh, am na ñu ñuy wax ni heure bu ñu amee jafe-jafe bu ñu tuddee ñetti alaaji Thierno Moule Sow rek seen ajo day faju mais également su ñu nekkee ci ay difficulté ci métit métit bu ñu tuddee alaaji Thierno Moule Sow seen mbir day jafe. dégg ngeen nag fi ñu daanee la mooy soxna si ñuy wax Aïssata Baté jóge France. nga xam ni digganteem ak euh, Alaaji Thierno Moule Sow lu yàgg la depuis France euh, wax na ni am na jigéen bu ko doon feeñu macha allah bi mu jëflanteek sëriñ bi te musul ñëw ci kër gi moom Aysata depuis France defe naa ni ci la ay mbiram daal di moo tax tey ngeen gis ñëw na fi indi teraanga bu takku pour jox ko sëriñ bi di Alaaji Thierno euh, Moule Sow kon ñu amoon vraiment mbégte di ànd ak yéen ci seen émission. grand reportage bés bu ne nag nii lañ koy defee sur la TMS TV nga xam ni mooy télé bi feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ jërë ngeen jëf.